sa diggante jigen ñi Dakar waaw fofu tamit day yomb trop parce que fi parfois da ngay gis lu bari da nga gis ay jànguma yu baax yu nga xam ni vraiment sante yalla duñ bëgg dara yow rek lañuy soxla yow rek lañuy soxla sa doole rek soxla ñeneen ñi ñoom sa xaalis dañuy soxla mel nu leen neex war mun a am lu nekk ci biir néegu sëy mais loolu du leen intéressé nga gis góor boo xam ne tamit dafa war a mun a am di am as tuutam di ko dajale war a takk jabar mais moom tamit dina am leneen li nga xam ne moo koy motiver ba nga xam ne nii moo koy sànq pour toujours dans sa vie parce que mun nga nekk xale bu ndaw nga nekk am avenir di ñefe nga am ay wajur yu bax yu nga xamni ni vraiment ya nga judd si si ñom ñu lay defal lu nekk ci aduna bi yo xamoo dara lu naxari ci aduna lu bax rek nga xam comprendre nga bon ci biir affaire bobu nonu yo di nga dem benn moment ñooñu so tourner seen ginaaw so leen gisatul day metti dina metti benn côté dina neex tamit benn côté parce que soo nekk nga xam da nga top sa bànneexu bakkan rek ak sa bakkan ça ne va pas du tout parce que da ngay dem ba maget fi do def dar lu nga xamne lu ñu xam la war nga fi mëna am sa kër bop war nga fi mëna am lu nekk lu bax lu doom adam di am rek war nga ko mëna am yow da ngay xam da ngay am mun nga am lu ne war nga mëna jënd auto bu rafet dawal ko normalement su fekkon tagon nga sa yoon di dox normal war nga mëna dawal auto bu rafet tabax kër gu rafet am jabar yu rafet lepp lu nga xamni ni moy mooy euh, comment dire lu moo la war yow góor ci kaw aduna bi rek war nga ko mën def quoi mais amna na benn moment bi nga xamne lool loolu yëpp da lay réer day réer sax sa science parce que moment yi nga nek mun nga nek di nan sangara bala ngay def ay di tux di dugg ci yenen detail yu nga xamne sa detail yoy mun de science ba nga xamne ni yoy yooyu do to ko calculer da ngay perte sa vie lu bare bare bare bare amna na benn moment bi nga xamne da ngay regret da ngay regretter yow yow fi nga xamne ni fofu nga jaar parce que fi nga jaar baxul yoon bi nga jaar ni baxul da ngay kalku su sa ak sa borom aussi parce que dégg légui gaaw na dara bu la dalé lolu problème la denculoo daa ngi liggéey économiser wo dara defuloo ben épargne da ngay waru bo amé problème bu ndaw de problème Dakar waxuma dara sax mais dafa nek dëkk bi nga xamné amul coloré parce que fi mën nga fi def 20 ans bus bo amé problème bu ndaw rek yow paré nga té fouti waaw problème fo dëkk sax fi problème la parce que premièrement location est très cher bi cher na lepp dang koy fay ndox boy nan sax dang koy fay waaw fi lepp amul Ben affaire bu nga problème mais bon d'accord bon yaa ngi def liggéey di yàq di def lu nekk mais na nga liggéey daal moom moo gën tamit def di bu def lu bon pour am xaalis wala leneen ak leneen ak am na am na am na demee noonu am ku nekk daal léeg nga gis ku nga xam ne nii yow li ngay jooy keneen na gën a siw mel noonu sax xëy na am na ñu nga ñi nga xam ne ni ñoom du loolu moo leen am na leneen leneen ay yeneen problème problème yi ñoo bëreendoo. yaa ngi si ñaata at. 49 euh, ans. vraiment ça va très bien. dëkk bi métti na trop Dakar alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax bon sur le plan koom-koom moom vraiment musuma chômer depuis bu ma bàyyi jàng école ba léegi maa ngi sant yàlla bu baax parce que maa ngi daan suma doole am naa suma métier comme architecture laa doon def ko def coffrage di si ñafe diplômé naa diplômé naa sax euh, e. waaw sa regret bi gën a fort si sa àddina lan la sa digganteeg sa borom sa digganteeg nit ñi sa digganteeg ñàkk xaalis sa regret bi gën a fort si sa addina li nga gën a wéccul lan la fi mu ne nii. waaw malgré temps bu yëpp li ma vécu noonu yëpp d'accord mais li ma gën a mooy sama diggante ak suma borom. parce que man je préférais man def lu nga xam ne ni loolu yàlla ak yonent bi ñoo ci ànd ma sell sell bi nga xam ne ak set bu nga xam ne ni boobu la yàlla soxla ci. doomu aadama bi si mission bi nga xam ne moom la war a accomplir ci yoonu l'islam comprendre nga kon donc boo dérivé noonu ci yoon boobu noonu di nga demee benn moment bi nga xam di nga toogal toog xalaat sa bopp di nga tiit sa bopp tamit di nga moytu aussi parce que on sait jamais parce que nit day dee parce ngi ñëw da nga xalaat da ne gis ne yow gënuloo ñuy dee ñuy dee ni ñuy deeyee noonu yow un de da ngay deeyee noonu te soo demee yow man xam di nga la yow sa borom tamit ci yenn détails yi nga xam ne nii yooyu mi ngi arrivé

fi lepp nga fi gis. parce que ñoo yow la wax yëpp ngay rajé ñom do ko xam ñu do ko do leen xam parce que ni ñëwé ci yow mom mo tax. da nga gis borom bu fanan ci gënaaw jëkkëram xey suba dem uti faram nek ak mom yo ba nga xam pek su trop tard la plupart ça arrive bari na légui loolu lu ëpp fi bari na borom jabar yi tamit nek di doxaan ak yoyu loolu tamit bari na te yooyu yëpp yow éviter. léegi looy conseil ñi nekk si loolu tey actuellement nii gannaaw bi nga regretté loolu yëpp nan nga leen di digal nan ngay def ba ñoom du ñu jaar fi nga jaar. xanaa ñu jaamu yàlla ñu jaamu yàlla ñu ragal yàlla ñu moytu lu bon parce que lu bon baaxul tôt ou tard da koy regretté en plus du la yokk mukk da lay wàññi rek. yow da wàññeeku. malgré wax naa la j'ai mangé des millions. mais tey si ay tabax nga dëkk waaw maa ngi fi alhamdulilah maa ngi sant yàlla munoon naa sax dëkk fu ma neex parce que damay liggéey di fayeku weer di am lu as tuut lu nga xam ne mun naa ci faj samay soxla mais je préfère mu mun a def ay économie moo tax ma ñëw dëkk fii waaw moo tax ma dëkk fii te fii aussi y a la am na liberté ak gi demee noonu. kon nga gën a mën a fat gën a mën a fat jigéen ñi. waaw maa ngi si booru géej gi aussi libre na di nga mën a féex di nga mën happy def lu neex ak yooyu yëpp mais. kon pareeguloo pour bàyyi. enfin non da ngay bàyyi. da ngay bàyyi pour bàyyi. kooku moom jóg naa ci dèjà pour waxal xale yi laa wax pour ñoom ñu mën a bañ a dugg ci genre life boobu noonu parce que life naan sangar tox yàmba jigéen bu bon ko loolu baaxul. te milieu bi ñu nekkee nii ñun gox bi moo gën dangereux ci gox yi nekk si Dakar. océan virage. Almadi Mamel jëm kaw foofu c'est très dangereux parce que lu fa am yëpp lu neex bakkan kese moo fa am bu amee tuuti xaalis dangay ngay def lu la neex amul benn problème yaay bañ. léegi lii nii ñu defar nii da nga préféré ñu wan ko àddina bi yëpp pour ñu moytu wala da nga bëgg ñu bañ ko wan kenn. non man bañu ma nit ñi gis ko bañu ma nit ñi dégg ko tamit mais buñ koy dégg nañ ko dégloo ak seen séance ko comme ni Youssou Ndour di wax rek ñu dégloo ko xel. que ko deglo xol parce que loo deglo si science di sa amé mais si deglo sa xol rek la parce que lu neex dafa neex waaw mais lu neex ngay top ba nga xamné ni lay kër ak yomal safara ah ak fi ci attention on se parce que xamaguñ xamaguñ parce que a rek fii ba ay 80% année lu nek digënté mu na fa arrivé té suñu borom mom ku gëremul mom yow mom c'est fini c'est perdu. légui ñi nga séxal ay jabari jambon ñu ngi ci ay élèves ñu ngi ci ay xalé ñu ngi ci ay mineur ñu ngi si ban genre lañu waxal ñu sa gémmañ. ñooñu yëpp ngay gis noonu ñëpp ñeneen ñi ñaka mo leen di duggal ci ay ndax ndax amna lima wax ni ay jabari jàmbur a ngi ci ay élèves ngi ci ay xalé ngi ci ay mineur ngi ci ku ne mu ngi ci. actuellement tu vois de n'importe quoi ndax ñi nga séxal la wax ndax ñoo ñu ngi si ñi ma lim nii li nga wax non yépp lool yépp mën na ci nekk ci biir ndax nekk na ci wala nekku ci mën na ci nekk nekk na ci sax nekk na ci waaw parce que lool yépp mënu ci ñàkk nekk quoi parce que société bi lépp a ngi si biir dem léegi vidéo bi may nga ñu pour ñu teg ko wan ko àddina bi yëpp ñu gis ko waaw wala déet As ah, bu la neexee teg ko fu la neex teg ko foofu léegi say mbokk ak yooyu bu fekkente ne ni euh, daf leen naxari nag

bien vrai. ndax da dof. dof ma gën jàpp ma. da ngaa mandi. <laughs> mandi wala seulement dañ ni ñu waxtaanee. il faut ma wax la li nga xam ne réalité bi nga xam ne moom la ñuy dund actuellement. gars yi dañoo gaaw si ko fekk muy mande da ko fekk muy nelaw. ñu ngi jàkkaarloo yow loolu dara amu ci. non si sa conscience tranquille non non li nga xam moom laay dund rek loolu laa wax quoi parce que man tax damay bind damay bind di di di lu nekk dama ko def parce que je suis waaw sa ta dugu mujj lan la gëñ nga dem si say doom eh, ay gëñ nga sété say mbokk parce que mané maneku jurom ben juróom ñetti wër ya nga fi si dakaru bien vrai bien vrai huit mois de plus ma fi fii mo bougé do donc parfois tu da ngay bëgg bougé da ngay bëgg gën da ngay bëgg sété mbokk yi lu nekk da nga bëggu mais aussi yow say yité bop rek say yité bop rek lool ay problème fi si dakaru actuellement ni parce que vie bi ci boppam dafa cher life bi ci boppam dafa cher vie bi dafa metti fii xaalis loo ci am du doy du doy dara du doy fii dara du doy ndakaar dara du doy mbokk yi sax mun nañ la mere parfois sa loxo dafay war a dem xam nga nga war am ci yu bëri yi nga xam da nga fay taxaw dafa mun a dem parce que yow sa bopp y des problèmes da ngay paas da ngay fay restaurant fi ngay tëdd da koy fay fii amul lenn luñ fiy may amu fi Dakar kon mën nañu xamné yow ko ànd ak sa sago nga yaangi liggéey sa monument de la renaissance waaw waaw kon euh, sa kàddu gu mujjé moy di len sant di len gërëm di len ñaan parce que li ngeen def tamit baax na parce que dina tax ñu ñu mëna wax li nga xam ni nit ñi buñ ko déggé dinañ mëna comprendre li ci kaw yoon bi ñu nekkee ak yu démé nonu quoi mais pas euh, dañu nekk ci xam nga rek aduna mo démé nonu quoi aduna mo démé nonu daal waaw aduna mom kenn mënu xam rek yàlla da moo mun daal xëy defar yëpp baax kon ki lay déglu nekk mu dégloo la xel te bañ la dégloo xol. waaw na ma dégloo xel bañ ma dégloo ak. waaw loolu la quoi ak xol xol d'accord. waxal loolu. na ma dégloo xel te bañ ma dégloo ak xol. jërëjëf.